Nous euh, les jeunes du département de de la grande majorité pour discuter sur la situation politique du département parce que depuis 2012 nous avons été ci mais aussi deuxième mandat présidentiel euh, vraiment euh, ñun jeunesse bi dañ ci am liguey bu am solo bo xamné def nañ ko ci té ci liguey bobu dañ ci xaar vraiment ñu jox ñu cër bo xamné ni mom lañu la cër bobu nak moy en premier lieu ñu gëna considérer jeunesse bi ah, dans deuxième lieu aussi ñu jàppale jeunesse parce que yaakaar naa responsable yu fi nek bu ñuy def tamit amna lu bëri lo xamné ne des na parce que amna jeune yo xamné depuis des années depuis depuis 2008 ñu ngi ci parti bi mu nek ci majorité présidentielle bi Benno Bokk Yaakaar wala APR té vraiment gisuñu sen bop ci affaire yi té lool nak dañ koy wax ci kaw parce que ñun bi bi xeex jotee dañoo xeex bi jàppale président Macky Sall jàppale jotee dañoo jàppale le président Macky Sall maintenant nag la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu gën a jeunesse bi nga xam ne ñoo fi nekkoon parce que élection yi yàggul 132 000 voix nekkul ne dañoo tëdd di nelaw moo ko am te loolu yëpp bi muy am dañoo waxoon ne jeunesse bi la jeunesse a tourné le dos au président de la république mais malgré le loolu yëpp ñun wàcc nañ ci terrain bi xeex bi xeex jotee ba jeunesse boobu voté le président Macky Sall maintenant nag dafa jot aussi ñooñu ñun ñu gis suñu bopp ci li nga xam ne mooy nguur gi

mu exiger responsable département yi département bi ku ci nekk mu def sa propre bilan te yaakaar naa ku ci def sa propre bilan di nga xam ne li nga waroon def am na lu bëri loo xam ne defoo ko ci Omar Youm moom moo nekk le responsable département du Mbour moom boo ko nekkee lépp lu yëkkati ko ci yow lay xëpp xam nañ ne am def na ay effort mu ngi def dara mais pour ñun war na mën a gën def ci jeunesse bi te loolu bu ñu koy wax tamit nekkul xaalis bu ñuy may nekkul lenn bu ñuy jox mais dañuy xaar ci moom mu jàppale jeunes yi pour ñu gën a am liggéey parce que ñun foofu la ñuy wax ñun servir nañ Sénégal ba servir joté moy président Macky Sall nek ci opposition and nañ ak mom xex yaakaar ne avec le PS e, avec avec avec euh, programme yi mu am mun na suqali Sénégal ba mu ñëw pouvoir ñu nekk ci à nekkaat ci moom aussi di xeex ba mu am deuxième mandat maintenant nag su loolu weesoo tamit ñun ku ci nekk ci ñun yaakaar nga ne war nga mën a servir Sénégal ni ngay servir Sénégal nag moom mooy au ci yow li nga man di ko def mais aussi ñu jox la ci ay cër yoo xam ne nii peut-être boo jay xëy di ca gontu di nga mën a gën a yokk ci li nga xam ne mën nga koo servir Sénégal mu loolu mu nekk njëriñu département de Mbour nekk njëriñu Sénégal yëpp donc Omar yu bu ñu ko interpellé c'est tout à fait normal bu fekkoon ne wax ba pare te ko tudd wala bu ñu koy tudd dañ koy maasaale comme ñëpp mais nag njiit comme ni Macky de may rek segam nit ñi bu ñuy wax Macky Sall la ñuy nag bu ñuy interpellé au niveau département de Mbour Omar Youm wax ne jeunesse bi nga xam ne ñu ngi ko doon xeexal jeunesse bi nga xam ne ñu ngi doon daw ci ginnaawam jeunesse boobu tey dañu soxla reconnaissance dañu soxla vraiment mu gën leen jàppale xam ne bu leen jàppale boppam la jàppale mais aussi mu wax responsable département bi nga xam waxtaan ak ñom en toute responsabilité ku ci nekk ñu wax la li nga xamné yow lañuy xaar ci yow yaakaar naa bu ko défé en premier lieu aajo yi dina faju maintenant nak lo su fajuwul aussi ci parti lañu ñu nekk on a des structures am nañ fenn fu ñu mën a dinañ ko waxé fofu dinañ ko ñaxtu foofu ba ki nga xamné moy kilifa gi di le président de la république nga xam ñun mom lañuy interpeller interpellé ko na def la le bilan du département de Mbour ñi mu jox ndombol tank ci département de Mbour ku ci nekk war na la wo laaj la yow xalé yi nga xamné ñom ñoy wax lan nga def ci ñom bu ko defee bu ñu defee situation boobu dinañ xam moom dina xam ndax kooku mérité na ñu bàyyiwaat ko fi mu nekk wala mérité na ko ñu changé ko pour leneen parce que aussi ici lépp loo man lépp maanaam loo mën a def rek lu ko raw te vraiment li ñuy xaar ci responsable département mooy daal ñu jàppale ndaw yi jàppale département de Mbour parce bi mu nekk ci wàllu manque emploi ak yeneen yeneen yeq yooyu yoo xam ne mën nañ ko wax malgré li président def yëpp vraiment ñu ñu taxaw ci ba muy gën a wàññeeku wala mu saafara